aouzu billahi min asheytaan irajim bisimillahi irrahmani irrahim ñu ngi dellu du sant suñ borom di julli di sëlmal ci yonentam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di jiital ci nuyo bi suñu kilifa nun ñëpp bàyyi seex di ñaan yàlla yàlla guddal aw fanam te dolli ak wér te nangul ko jëfam yi te it bu soobee yàlla it dana ko nangu ndax kenn ku ne xam na ne soo doon wër réew mi fii mu toll ku am at yi mu am ba noppi nekk ci daara di yëngutu di kër kër yi jafe na du ma ne amut waaye man si moom rek laa ko gise kon yal na ko yàlla fayal royuwaay la ci képp koo xam ne kii danga ngaa yore daara royuwaay la ci képp koo xam ne kii kilifa ak diine nga ndax su fekkoon ne. ñëpp kilifay diine yëpp doomi daara yëpp dañoo taxaw woon taxawaay bii mu taxawee ak at yi mu am ñëpp suñ ko taxaw woon yaakaar naa na tool bi du am am mbooy kon yan na yàlla guddal aw fanam ña ngi nuyu ñëpp nag ci turu sëñ Maxtaar Naarloo moom daaray kokk mi nu fi di nuyu mbokki sëñ daara yi fi nekk yaakaar naa suñ tuddee alaaji Seex Njaay mii tudd nañ ñëpp di suñ kilifa ci lépp ci lii nag man nu ci gën koo xam gën nu cee dàq jotal yaakaar naa ne li mu war a wax wax na ko lépp man loolu duma ci delsi ndax kenn amatul loo ci mën a wax ndax yokk ab leeral da si yàggee day lëndëmal rek yokk ay wax ak leeral te wax joo xam ne ji leer na ba noppi loolu day lëndëmal kooku man duma ci dugg yan nanu ko yàlla fayal te yàlla dëgëral taxawaayam euh, wax na lu jëm ci wàllu waajur yi ak ji nga xam na ni am nañ ko seen doom man li may wax mooy ne nun ñi nga xam na nii ay waajur lañ nun ñi nga xam ne nii ay nit lañ ak ji nga xam ne ni am nañ ko suñ digganteeg sëñ daara jan ak moo war suñ digganteeg sëñ daara bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale bi jàng xale bi mujjoon a taxa fii di jàng léegi jàng na ko suñ borom subhanahu wa taala da koo ŋooyloo ŋooy waxu ko jàpp rek ndax jàpp mën naa mën naa woyof nañ may tuuti rek dañ koo ŋooyloo ci téere bi yàlla bi maanaam ci alquran ji dañ na ko ŋooy ci siiw ci ŋooy ak siiw bokkut jàpp ndax soo jàppee mën na laa rëcc waaye loo ŋooy siiw ca bëriwul lu mu rëcc lu muy rëcc waaye ba ko ci yàlla waxee mooy ci doomu aadama yëpp dañoo yaakaar ne jullit ñi dañoo yaakaar ne suñ borom yonent bi rek la ko wax waaye mu ne ko yow yaag sew nit ba ker yow mal xiyaam di taxaw lépp luy seen atte lépp luy sunti seen diine lépp luy xam-xam bu ngeen war a xam ci àdduna ak àllaaxira lépp lépp loo xam ne nii aw yoon la woo xam ne nii moo leen di tax a dugg àjjana di leen tax a moytu lu ko ba du ngeen dugg sawara ma ngi ci téere boobu la yëmul ca loola yàlla yëmul ca loola wax yonti san san na ko mooy na nga ci jàpp waaye dana ko na ngeen xam ne nag ëllëg ndem téere bi ñu leen mooyloo woon jàpploo leen ko ne leen leen ci te ngeen siiw ci ëllëg dañ leen koy laaj bo mbir moomu problème bi foofu la nekk kenn ku nekk war ngaa taxaw ne xam ne ëllëg danga taxaw sa kanam boroom dana la laaj téere bii ma wàccee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy alquran ji waaw yow ban taxawaay nga ci amoon nan nga ko jàppe woon nan nga nan nga ci def ak lan moo tax sa diggante ak moom muy problème yu bari ta laaj la boo xam ne bi li la wax ci alquran lu leer la wa kulluhum aati yawm alqiyamati farda nee na la tàmbalee suñ aadama ba ki mujj a ki mujj a faatu ñoom ñëpp su kere yow ma xamee benn par benn lañu ñëw kenn ku nekk suñ borom nee na danaa taxaw yow di leen laaj di leen laaj di leen laaj ba nga yaakaar ne yow rek laa bind maanaam taxawaay boobee nag lu jar laaj la lu jar a bàyyi xel la waaw nun ban taxawaay lañ taxaw suñ digganteeg daara yi ban taxawaay lañ taxaw suñ digganteeg sëñ daara yi lan lañ dongo yi jàng alquran lan lañ leen defal sëñ Cheikh Sow mi ak fii mu nekk ak at yi mu am nga xam ne su fekkoon na ci liggéeyu tubaab la dañ naan dem na retraite bu yàgg waaye liggéey yàlla moom amul retraite am na ay moromam yoo xam ne sax ay atam lañ am ci liggéey yàlla bi lañ nekkoon waaye nag nopp lu nañ bàyyi koog njaboot gi waaye moom ba léegi moo ci mën njaboot gi waaw nun lan lañ dox lan lañ lan li ñu war suñ digganteeg moom lan lañ ci wax ak lan lañ ci def te kenn ku nekk ci nun ñaari xale ya yor ñaari doom ya nga jur leen ci kër rek maanaam suñ xëyee suba rek jànguwuñ ca daara ja wala jànguwuñ ci école ba rek da ngay bëgg a rey la xale yi daara ji war nañoo béddi ndax bërgi dafa yàgg nun de kokk léeg-léeg am na ay waajur yoo xam ne ni ñu sant jóob lañ ku sant jóob na dafay tëxit euh, dañoo tasee ca jullikaay mu ne yeen bala ngeen di joxe ci ak bër dañ cee war a waxtaan mën na ko ci lu tax mu ne ndax xale yi ndax nun fan yin fi am daa gudd nangam ak nangam mën na ko nun ñu leen yor at nag nun leen di yor at nag bàyyi leen ay bis dong na leen ñu nekk seen kër waajur yi delsiwaat nun ñu féex tuuti dara waaw kon nun ñu leen yor at nan la ñuy def mu ne ko waaye lu ci mën tam daal dañ cee war a waxtaan ndax loolu jaaduwul ñaari fan doy na ci ñetti fan doy na ci waaw yow mi yëg loolu nag xoolal sëñ Cheikh Sow ak alaaji ñoom ñi dabootam ñi koy jàppale yor daara ji ak lim bi yor di yendoo ak ñoom di bëccëgoo ak ñoom di guddendoo ak ñoom nekk ak ñoom waxtu nekk wu mën a tañ war leen a jàngal war leen a yar war leen a jubbant war leen a ci aw yoon lépp ñu war ko waajure yow nga toog fa nga nekk yaa nga nekk Ngeer Malal wala yaa nga nekk Kër Mamar Sarr wala yaa nga nekk Kokki wala yaa nga nekk Jaajot wala yaa nga nekk Dakar wala foo mën dégg bàyyi bi naan sama doom maa ngi ko bàyyi ak sëñ Cheikh rek te defoo ci dara andiwoo ci dara ko ci dara saa boo dikkee soo joxee junni wala nga joxe ñaari junni wala nga joxe bërikoob ceeb nga yaakaar na yow sa doom def nga ci dara ta defoo ci tus nag lii nag feeg nun waajur yi ñu ngi melokoo melokaan yi jox sëñ bi daa donga bi bàyyi ko ak moom seetaan ko ak moom duñ ci def dara lu dul léeg-léeg rek ñëkk siyaare si ko jox ko ñaar junni wala nangam ak ki nangam te léeg-léeg sax nga weesu xale bi naan ndax yaa ngi naan kafe ndax yaa ngi naan lii ndax yaa ngi def lii te andiwoo sëriñ bi tous maanaam su yàggee sëriñ bi duutu mën a jàngale loolu na leer su yàggee tamit saa bu daara yi tasee xam leen ne sëriñ si tas ko waaye yéen waajur yéen a tas daara ndax li leen war da ngeen cee deful dara muy man ak sama morooma ci yam ki kenn dul moom day muy Cheikh Amadou Bamba kooku moo xam nan la ñuy sampe daara dégg leen bu baax te lii may wax ci moom moom la alaaj Hadj Malick moom la Cheikh Omar Fouti defoon moom la ñeneen nit ñu baax ñëpp defoon. bi mu demee ba gis ci ñi yar ba gis ci am koko ko ba jort na ci jukkoom ak melokaanam ak xam ak ak ak ak maanaam alquran doy ko muy sëñ daam Abdourahman Lo bam na ko ne kaay nga jël kaay nga jóg nga dem nga yow dara du sa métier lu dul nga jàngale ci alquran daa dem daarul xalimul xabir ñu naan ko ndaam tey sëñ Tuba amoon fa kër gu mag goo xam ne kii taalibe yi ñoo ko defar te kenn ku nekk xam ne taaliba murit li muy defaree ak kër surtout kër sëriñam kër su see Bamba kër ga manqué wul dara mu ñëw dugal ko ca kër ga génn kër ga moom dem sanc feneen yemul ca loola waaye woo seex su mag sëpp woo seex Ibrahima Fall sëñ Issa Dieng ak seex su mag sëpp ne di leen liggéey di ñëw di jox di andi fii ci daara ci di leen jox kii lu muy mën a jàpp lu muy lu mën a toog mën koo jàngale loolu mooy kii moo mën a samp bokkut moom ay ñaanam bokk toog ay def defam jox ko njabootam jox ko Cheikh Modou Moussa jox ko sëñ Fallu andil ko ñeneen ak yeneen taalibe yi ñoom ñëpp andi seen njaboot bu toog di leen jàngal kenn ku ne gis na ne gis na ne Cheikh Modou Moussa kenn du ko yab ci xam-xam sëñ Fallu kenn du ko yab ci xam-xam keneen ca ñoom yaroon mag ñooñee mu yaroon yëpp muy sëñ Maxtaar Binta ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kenn du leen yab ci ci xam-xam kenn du leen yab ci wàllu gu nekk waaye nag dafa fekk sëñ ba ñu dig ko am luñ ko jox am luñ ko jàppalee ba toog mu mën a def la muy def waaye léegi nag tos amatu ci loolu nag sama mbokk sëriñ si na ngeen ma baal ci laa yéen laa koy jëkk dal si Ahmadu Bamba lam doon def kenn da ko fee defatul Alaaji Maalik la mu doon def kenn defatu ko fi kenn ku mën a doon mennum sëñ Saaliw moo ko fi doon def ba mu fi jógee gisatuñ kenn koo fi def sëñ ab sëñ Abdou Aziz tamit ni mu doon jàppalee daara yi fuñ saan wax ba xas daara tudd daara kenn ku nekk dégg na rajo yi dégg na li ñuy wax daara li ñu yekk dongay daal li ñu leen di wax moom na moom dong moo ci mas a jóg keneen jógut ban sëriñ ngeen jog ci sëriñ si mu jóg kenn waaye nag sa fatu sa àllu na de yowmal xiyaam danañ leen ko laaj suñ borom dana leen ko laaj te sëriñ soosu lay jëkk a teg laaj leen daara yi bañ bañ nekkee di xas daara ci rajo yi ba nit ñi jógee nitu nguur yi jóg ci kaw daara yi di dal ci kaw dongo yi di leen jàpp ko tëj yan ban responsabilité ngeen lan ngeen ci def su boobaa man duñ ma tontu man fàllu waaye su boobaa dalañ tontu seen borom loolu nag lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la waaye borom alal yi tamit nañ xam ne nañuy laaja sëriñ si lan mooy waaye seen war ak seen taxalaay ci la daara yi tamit ñoom it seen alal ju bari jin yoroon te liggéeyuñ ko moomuñu ko ndax lépp loo sonn rek ba am alal rek nit sonn na coono bu ko ëpp te amul la am waaye loolu nag yow ban taxawaay ak pan jëf-jëf ci alal jooju lan nga ci delloo daara ban nga jëlloo jukkal dara dafa am borom alal bu lekk ba suur toog ci comptoir am daal di géex ne alhamdulilah rabbil alamin fek fa benn sëñ daara ba borom nga xam toog mu ne ko yow loolu du sax sant de mu ne ko diw loolu du sama alam mu ne ko loolu du sax sant yow mu sax cant yow mooy nga yëkkati ci alal ji delloo ko ci daara yi delloo ko ci way ñàkk yi loolu mooy sax cant yow waaye du alhamdulilah rabbil alamin kon bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax suñu bopp sëñ daara yi mën naa am ñu walanteeru futteeku jox seenu dund lépp seen dund gépp ñu def ko ci jàng ak jàngale ku mel ne bàyyi seex mi loolu nag la man loolu la man waaye mënul leneen waaye yor xale yi taxaw leen toppatoo leen yépp la war danaa la xamal leen muy ab président de la république ak bu mu mën a doon muy ab ministre bu mu mën a doon muy kilifa diine moo xam xalifa général la moo xam kum mën a doon moo xam commerçant la moo xam béykat la moo xam nappkat la moo xam ab sàmm la moo xam kum mën a doon ku dem a dem ba yëg la la defal ba tax ngay ngay dóor sa dënn di ndamu gannaaw yàlla bàyyi Cheikh Sow mi ak ñu mel na ñoom yor ay daara di jàngal ay xale yi ndaw al arafi al quraan muy dugg seenu dënn moo la may jàmm jooje nit nag wër taf nit waaw ah. Ah. waaw kon nag kon nag waaw Baye Cheikh waaw waaw ah loolu nag dégg ngeen li Baye Cheikh wax Eh, toog leen toog leen soxna yi toog leen ànd leen a ko dal tuuti ñu àggale Baye Cheikh nee na Baye Cheikh ne liggéey bi bakkanam la ci teg nee na bakkanam la ci teg waaw ah, ah, waaw waaw te li ko ñaala tamit du dara lu dul bëgg a nekk taalibu Sëñ dong bëggu leneen yal na nañ ko yàlla fayal kon nag gars wax ji gudd na jéggal leen ma waaye nag nun sun yaram dafa tàng te nun li ñu yëg lu ñu yëg si sun xor rek noonu lañ mën a waxe lu ñu yëg sun xor rek noonu lañ mën a waxe ah ëllëg jërëjëf Baye Cheikh li xam ne man fi may yemale samay wax mooy ne képp koo xam ne kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day daa am bés mu woote jullit ñëpp ab xare bu ñu waroon a taxawal mu waar leen wax ñoom ne leen andi leen ci diine ji andi leen ku waay def gaa yépp di def ñuy def di def di def di def di def ba yàgg Abdurahmaan naaw fi ñëw daal di jëf la muy jëf yonent bi ne ah mbir day am seede kat yaa Abdurahmaan yow lan nga def ak lan nga fa ba lan nga andi tey ci woote bii ma doon woote ngir yàlla ak lan nga fa ba mu ne lépp lu nekkoon ci kër ga dama koo def ñeenti xàcc ñett yàllaa fa bàyyil njaboot ga benn bi la andi xam ngeen ne kenn kun waxoon ci nun li li nga yor rek li nga yor léegi rek def ko ñeenti xaaj rek doo ko nangu ñu ne kii de kenn mësta jëf lu tal ne moom nekkate boobu Omar ibnul Xattaab daa ñëwagul Omar ibnul Xattaab ñëw akub yanam daa di ñëw sëppeel yonent yi salaa salaam ne ko yaa Omar lan nga lan nga indi ak lan nga fa mu ne ko lépp lu nekkoon ci kër ga dama koo xaaj ñaari xaaj benn ba laa fa bàyyi bi ci des laa anji def ko ci yoon yàlla bi tey ñu ne Omar ibnul Xataab de kenn du moom te Omar moomu kat dem na ba nag bi gannaaw bi yonent bi jël jógee Abu Bakrin toog moo toog te am na benn bés boo xam ne moo yoroon baytul maal liñ naan banque jullit ñi alal jullit ñëpp ci loxo am la tege woon te am na benn doo xam ne dañuy julli àjjuma muy ilimaan ji comme Baye Cheikh Sow mi dañuy julli àjjuma mooy ilimaanu jumaa ji ñëpp di ko toog ñu di ko xaar di ko xaar di ko xaar di ko xaar ba jaadootul mu doog a dugg si ne asalaamaaleykum daal di toog ci minbar bi na maa ngi jéggulu mbooloo mi ci yeex a ñëw gii ma jeex a ñëw ndax man menn mbubb laa amoon ci menn mbubb laa am tey soxna si dafa taqoon soxna si doon ko fóot te wowagul ma doon toog tuuti mu fedd man koo sol doogu mën a dikk julli julli julli ñi kii day su fekkoon ne alal lay wut dana am lu ëpp ñaari mbubb dana am lu ëpp menn waaye nees kii si Omar ibn uh, Abu Bakrin dikk yonent na may leen ma ñu ne may leen ko mu ne ko mbir day am seedare yaa Aba Bakar lan andi ak lan fa ba mu ne lépp lu ma amoon andi naa ko tey def ko ci yoon yàlla lan nga bàyyi njaboot mu ne ko yàllaa ko yonentam tous laa leen bàyyiwul yàllaa ko yonentam donc laa leen bàyyi kon l'islam doomu aadama yàgg na cee jëf ñaq joxe ñaqam joxe bakkanam ñu yoroon alal joxe nañ seen alal ñu joxe seen bakkan joxe seen ba kon nag gaa ñi dama ne yéen ñi teew góor ak jigéen mag ak ndaw dama leen di ñaan ngir yàlla képp koo xam ne kii bëgg ngaa wàcc wàccuwaayu ëllëg sa ñooñee sëñ Tuubaa dëgg da daaloon ne leen génne leen seen alal ngeen ñëw dimbali sëñ Tuubaa Abdourahmane dama taxaw daara ji ak ñooñee Abu ñooñee yéen ci sala woon muy Aboubacar muy Ousmane muy amar muy saaba yëpp fa ñuy wàcc ëllëg ca jannatul firdawsi képp koo xam ne bëgg nga ca wàcc ngay góor ngay mag ay ndaw lambal sa loxo dugalal sa loxo ci sa poos nga génnee indi fii loo xam ne nii ñoo ko dimbalee daaray bàyyi seex jëw saw ji loolu mooy wax ci jërëjëf man saa wax ci daara weesuwul yalwaan andi leen jërëjëf and yéen waa bayax nag yéen a ci war a daw te li sax jaaduwul dafa jaadu kër gu nekk saa bu añ jotee wala reer jot kenn ku nekk tibb ndap nga indi wutal ak kaala sëñ wutal kaala nga def ci wutal kaala gars yi lamb leen mu ñëw lamb leen mu ñëw ñëpp laa laaj de lamb leen mu ñëw lamb leen mu ñëw lamb leen mu ñëw ah jëlal jëlal kaala sëñ bi jëlal kaala nga def ko ci wutal foo ko def wutel foo ko def suñ ne lislaam tamit jigéen moo ci jëkk a joxe alalam muy sayyidatuna Khadija soxna yonent bi sallallahu alayhi wa ba alalam jeex takk mu dimbalee ko lislaam kon nag suñuy laaj jigéen ñee góor ñëpp war a def waaw gars yéex na de bi ñuy waxtaan léegi di wax ba bàyyi seex xolam yëngatu ba mu yéen yëngatu ngeen waaye biñ jógee bay laaj alal na yéen ñëpp ne ngeen teg yëngatu leen alaaji man li may wax alaaji may ma tuut sëñ alaaji man li wax sama bopp laa lay wax bàyyi seex moom li mu war a def def na ko ña doon maasam mooy Cheikh Ahmad Saxiir ña doon maasam mooy sëñ Mor Mbay Siise ña doon maasam mooy ñooñu ñoom ñëpp fañ jeexale woon seen dund moom mi dem na ba romb faraw kon moom wàcc na te tey la gën a taxaw tey la gën a takku li wax ji nag mooy ne nun ñoo ci des nun ñoo war a góorgóorlu war a taxaw coow yi tamit ak wax yi dana bari ki na daare lii nangam ak ki nangam waaye danaa la xamal leen su nit yi jógul taxaw nañ war a taxawale daara dimbale nañ war a dimbale daara ki buñ yaakaar kenn buñ sukkandiku ci kenn ku dul yàlla rek moo jare yaakaar yàlla rek moo jare sukkandiku moom dana leen dana dana dimbali dana dimbali daara yi par force loolu nañ ko xam waaye buñ séentu li ci loxo nit ñi buñ ko gis tamit buñ ko bëgg waaye na naa doy nañ doyloo yàlla ci nga nekk waaye dama la ci soññaat di soññ sama bopp nañ gën a góorgóor taxawaat te gën a doyloo yàlla féeteeg suñu bopp yàlla doyloo yàlla ci lépp nag sëñ ma sax yi daana wax ne daara rek moo mën a dem lenn su demee ba dongay daara yi nekk ci dëkk ba amul luñ mën a lekk xiif ba xiif nar leen a mu rey kilifa kilifa ga mu rey kilifa ca dëkk ba ñu togg ay ñam dongay dem lekk ca ñam wa delluwaat jàng ci alquran daara rek ko ko man kon nag alaaji na nga gën a góorgóorlu na nga gën a taxaw yaag yaag say rakk ak say mag yëpp a ci yam lii rek am solo ndono lii tamit bàyyi moom wàcc na doonoon na ci bàyyam bàyyi wàcc na doonoon na ci bàyyam waaye ba mu agsi ba ci yéen nag maanaam nun war nañu góorgóorlu war na taxaw ba ndoon na le ba mu jàll ci ay doom jàll ci ba ci ay sët ngeen baal ma ngeen baal nag ci guddal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Fallou na yàlla fay la yàlla la yàlla taxaw sàmm la aar la wax ji am na solo lool tey dugg na ci xole doomu aadama yi yàlla nañ ko dégg noonu ñu mën koo jëfe yàlla yàlla yombal ci ñoom ak jëfe ndax daara dañ koo singili teg ko bët te ñu baree bare bari yuriduna li yutfiu nuurallahi bi afwaahihim dañoo bëgg a fay leeru yàlla gi seeni i gémmiñ ak seeni pexe waaye nag wa yaba allahu illa an yutimma nuura yàlla bañ na lank ndaara ni loolu du fay ba ñu mel nii ñoom ñooy jóg di taxawu daara ndax ay fan ci gannaaw yéen a ngi déggoon euh, ñuy jàpp taalibe yi ci wàññi yalwaan gi wala ñu arrêté ko loolu amoon na dakaar ak yenn ci région yi euh, bi mu amee loolu bi mu amee ci daara ji taalibe yi arrêté woon nañu yalwaan léegi nag bu ñu xale taalibe yi arrêté nañ yelwaan fan lañ doon dunde jamono boobu ñu doon tere taalibe yi yelwaan daara ji arrêté woon nañu yelwaan waaye li doon dunde mooy bàyyi seex mooy génne ci poosam di togg di jox ñuy togg taalibe yi dunde loolu moo fi amoon loolu li may wax alaaji mi mat na ngi seeda ak ñi nekk ci daara ji loolu nag mënoon naa ñàkk ni mu doon ñàkke mooy koñ bi yaatu na bu kenn jëloon benn taalibe doomoo ko defal ko añ reer ak ndékki daara gi bàyyi yalwaan kon bàyyi yalwaan gi ak euh, benn sëriñ daara bëggul taalibam di yalwaan bu sañoon tey mooy def lépp waaye nag manki moyen moo waral lu mel noonu kon ñu ngi woo waajur yëpp ñu bàyyi xel lu mel noonu ku ci nekk la nga mën a warloo ak daara ji ci wàllu maanaam jël charge benn taalibe ni kii maa ko yore lépp saa bu añ jotee wala reer ñëwal nga jël sa bool booba taalibe boobu dana am fu mu féete ci daara ji yelaan sa duudu ko def day génn rek dem jëli añam ñëw teg bu reer jotee mu génn jëli ko ñëw teg loolu nag ku ci nekk bàyyil xel sa diggante ak sa borom waaye sa diggante ak daara ji ndax daara gi war nañoo jaral lu ko ëpp ndax gina ko ci koñ bi kon incha allah sëñ Fallou ñu ngi lay jërëjëfal ci kàddu yooyu yàlla na yàlla fay la kon kàddu gi ñu bàyyi ko euh, sëriñ ji mu am yenn kàddu yi mu joxe rek bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, yi ñu leen di ziar rek xam naa fi mu toll nit ñuy programme woon waxtu wi xoj nañu lool ba tax na xam na am na ci loo xam ne moom dañuy julli ba noppi rek door ko eggale ñuy sant sëñ Fallou mi nga xamante ne mooy door a daaneel léegi di ko ñaan suñu borom tabaraka wa tax yal na ko ay fan wu gudd ak wér dolli ko dolli njabootam ñu ko ñoo ngi koy maanaam jotal nuyoo ak nuyoo sëñ Maxtaar Naar Lo gis nañ taxawaay bu baax a baax ndax sëñ bi de naan sëñ Fallou mooy koo xamante ne mën naa mën naa taxaw mën naa taxawal daara yépp yépp waaw fu fu ñu nekk fu daara néewul bu fa nee seen xel ñoom ñëpp dana dal ndax moom daara moo ko yitteel daara moo ko yitteel waaw am na lu ko doy sëkk bu doon maanaam uh, bu doon looloo dañ am na lu ko doy sëkk ndax ku ko kookee ku ko dégg wala ku fa dem xam na la fa ne doy na xëyb doy na ngont kon tax taxawaayam bii nga xam ne moo ko taxaw ngir bëgg gu bëgg daara rek ñoo ngi ko ci sant te di ko ñaanal yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala fay ko ngën ji fay. ak noonu mbokk mi nga xamante ni moo doon waxtaan léegi. ñu ngi koy sant bu baax a baax di rafetlu maanaam waxtaan wi lépp waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom tabaraka taala yal na ko dolli xam-xam te defal ko wér te taxaw ko biir ak biti mbokk yi ñi fi teew ñëpp nag gis nañ leen ñu ngi leen di sant ñëpp mbokki dëkkandoo yi ak ñi jóge fu sori ñëpp gis nañ leen am na ñu fi jotoon tudd léegi waaye man damay bañ tudd tàmbali tudd rek bàyyi ñee sëriñ moor jóob bu Ndar yabal na fi doomam mu ànd ak mbooloo ñu ngi ah, ñu ngi leen di nuyu di leen dalal seen wàcc seen wàccuwaay waaw Samba Kanté nee nañ maanaam yebal na fi mooy waxoon nañ ko sànq am na ñu fi yebal xam na bu ñu ba noppi daañu am kàddu ndax dafa waxtu bi dafa xaw a xat waaw ñi fi ñëw ñëpp daal gis nañ leen ñu ngi leen di sant seenub taxawaay bokk na ci li nga xamante ne kàddu yoo xam ne seen bi ne woon daañu ko wax nag lu mu gàtt gàtt mooy képp koo xamante ne jël nga sa doom indi ko fii ci daara ji. na la doy gu la sëriñ bi doy tax nga indi ko fi waaye bu ko fi indee teg ko ci loxoam na la doy waaye bu fi nekk di sàkkal diw lañ koy jox wala diwul moo koy jàngal wala diw moo koy jàngal ndax ku fi mën a jàngal sëñ bi moo xam yow ki war a jàngal ak ki la warta jàngal li fi am lépp ci loxo sëñ bi la ne ku fi indi sa doom te sëñ bi maanaam ak doyam tax gi indi ko fi boo fi indee sa doom bu fi sàkkal diw koy jàngal ak diw koy jàngal loolu daal bëgg nañ bu baax a baax nit ñi bàyyi ci xel waaw ndax loolu ak ak doy nga ma doyoo ma lay lay nuru ndax ndaw su fekkente ne maanaam jox nga ko ne ko am nga ñaari njaatige ah su ko defee rek yow yaa ko dugal ci lu baree bari lu muy dugg ndax lañ koy sant ca ca daara ja su ko nanguwul day wuti ca njaatige la lële bu ko njaatige loolu loolu gisul mu ne maa nga ca daara ja kon daal kii xam ne dañ koy yëkkati muy indi fii ci daara ji na daara ji rek rek tax muy jóg. su boobaa képp koo xamante ne dimbali dimbali ko moo ko tax mu jog te sëñ bi xam na ne kii dimbali koo tax te benn lor du ca sàkku du ca du ca du ca ànd kooku sëriñ bi dana woo kooka mu jàppale ko mu dindli ko waaye dama lay yëbbu daara ji sa yére yaa ngi koy bàyyi béréb sàngam soo tilimee demal béréb sàngam na xam bu tilim sax mu ñëw jël dimbali ko maanaam pour fóotal ko loolu ba bañuñu ko waaye xale bi daal bu def ci boppam ne ko ñaar laa jox ne ko da ko sëriñ bi laa la jox toppal sëriñ bi ndax ñaari kilifa yooyu noonu toujours dañuy gis ay ay ngaañam lu bare bare ba da xale boo xam ne nekk daaram yàgg rek mu mer génn dem nga defee daf ne ci dëkk ndëka yóote maanaam dafa dem ca kël euh, euh, maanaam kañuy kañuy tudde maanaam ne moo koy fóotal ak yooyu maanaam mu jël ay yëreem dem yoonam ak yeneen yeneen lor yoo xamante ne mëneesu ko sax a wax kon daal ku fi indi sa doom na la sa doy bu la sëriñ gi doy tax nga indi fi sa doom waaw loolu nag am na fi amati fi moo tax ñu di ko wax loolu nag ñëpp bàyyi xel maanaam li mu li mu jëkkoon wax. Hmm. na li ma jë li ma li ma njëkk a wax. ci ñetti at yii. nee ci la gis mu tàmbali. nee du ren. du daaw du daaw. te nee na jigéen na ko fi jëkki woon te mooy joxe ba neppi naan sama doom nañ ko na ko diw jàngal. waaw. loolu moom bëgguma koo dégg. nee lool bëgg koo dégg. li mu leen di xamal. li mu leen di xamal. ci lu wér. nee ku mu doy. indi sa doom teg fi teg ci loxoom. la nga bëgg. la nga bëgg. nee na waat na ci yàlla ne. noonu la ko bëggee. te pexe mu mën am. ne te pexe mu mën a def. ci biir daara ji. ba ba li nga bëgg li ma bëgg nga bëgg nga am ko. ba li mu bëgg nga am ko. maa la a xam. ne moo la ko gën a xam. xale bi ci boppam. ne xale bi ci boppam. bu nekkee ci daara ji. bu nekkee ci daara ji. yërmande ji ma am. ne yërmande ji ma am ci moom. ne sa doomam yii. ñoom la yamale képp. yoon la xam na ko. ne ku ko xam xam xam nga jukkaam ci loolu ne du fii rek de ne lii yàgg na ci ne bu dee lenn dong bi la koy wax ndax doom ji am na néeg ndey ne loolu yàgg na ci wa ne kon nañ dimbalante ndax kii liggéeylu ne ndax kii liggéeylu ak ki koy liggéey war nañoo mën a war nañoo mën a déggoo. nee war nañoo mën a déggoo. moom moo koy baax. nee moo koy tax a baax. ndax fii ndax fii de. ku fi ne ku indi sa doom. ku fi indi sa doom. bu wo bu woppee. bu woppee. daya lool. bu doo ko yëg. te des na ko faj. te des na ko faj. moom mii de. nee moom mii demee. Eh, bis bu ne. mi ngi xëy. mi ngi xëy. di gont. di gontu. dem hôpital. dem hôpital. dem dispensaire. dem dispensaire. ak dem dem ci kër docteur yi nekk ci dëkk bi. day dem ba sax moom nan ma yërëm ko. ne day dem yàgg sax mu yërëm nu. am na ñuy sax naan waa yow de. Eh, am na ñuy wax sax naan yow de. yàgg na yàgg na. du tey du tey. da ngaa war ku wopp. da ngaa war ku wopp. nga nga nga nga woo kilifaam jox ko. nga woo kilifaam jox ko. ma ne loolu rus loolu rus na ko. gannaaw dama dama daa doyoon. ne gannaaw da nga koo doyoon. bi nga may jox bi nga may jox bi ko koy jox. ki nga may jox. dara dara yoru ko bopp metti ko rek ma ne ko rek demal seen kër faju ji ne loolu rus na ko ngir yàlla ne lu mu man ne dana ko ci def ne bu demee ba sa xam gisatu lu mu xam ne dala woo yow baayam ne la kii kat wérul ne loolu rek leen di yëgal ne nit ki ci boppam moo xam boppam ne moo xam boppam ak la yàlla xam ci moom ne doy na sëkk ne leneen amu ci yoon ne loolu bëggoon na ko wax ne daaw jéeg la ko bëggoon a wax ne ren la ko yàlla dogal ne ku mu doy bàyyi fi sa doom te dem ne bu la doyul kala doy nga yóbbu fa sa doom ne lii na leer ñëpp tey ne jërëjeen jëf ne lu bari li muy def gannaaw yàlla yàlla ci boppam. yàlla ci boppam. lii moom lii dafa ko sant. ne lii da ko sant. ku xamuloon baatin bi. ne ku xamuloon baatin bi te gis zaahir si. ne ay ati ati at. loolu. te du dellu gannaaw. te du dellu gannaaw. day jëm kanam rek. ne da ngay xam ne lii santaane bi yàlla la. ku ko ne ku ko xamul it. man yaakaar naa ko. ne moom yaakaar na ko. da daa am lool nag. des ci àgg ci wax. ci rajo. ci rajo. waaye nee na leen wóor ne. lii santaane bi yàlla la ci lu wér te lu mu mën dana ko ci def. du jéggi ne nag demoon ba ñàkk ba ñàkk pexe. mais du jéggi ne nag ba mu ciy dugg dafa ñàkk pexe tax mu dugg ci de. dem ba oh, damaa bëgg métier ma wala bëgg métier dugal ko ci de. lii ne lii. bu doon lu ñu donn. bu doon lu ñu donn. ne da ko doon ci maamam. ak baayam. bi ma tàmbalee jàng. ne bi mu tàmbalee jàng. ne wàccul alxuraan. ne si ñaar fukki atam. la tàmbalee jàngale. Euh, kër sëñ Modou Maam. ne kër sëñ Modou Maam. Diop Diop. bokk ci waa Kokki ñi. bokk ci waa Kokki ñi. foofa la jëkk dem. ne foofa la jëkk a dem. booba tey. ne tey. lii ne loppalu wu ci. ne jox jox wu ci. ne lu mu man mi ko ci def. loolu leen bëgg a leeral. ne loolu leen bëgg a leeral. ne lii mu leen wax nag. ne du fen ci moom de ne yàlla xam na loolu ne mi ngi leen di sant ne sëñ Fallou ne mi ngi lay sant di sant ci kilifa ga nga bàyyi ko ne ndax ne waaye ne bu yàggu rek lay wax naan sëñ Fallou dey ràccul rek di tey ci kanamam ndax yow booy wax daara yëpp ngay waxal ñëpp ngay waxal ne yal na yàlla dolli guddal fan wi ak kilifa ga nga bàyyi ko. sa kilifa gi ñim la ñoree. ak sa kilifa gi ñim la ñoree. ak ni nga taxawee ci ay aajoom. ak ni nga taxawee ci ay aajoom. ne yàlla na ko yàlla taxaw say aajo yëpp. zahiran wa baatinan jërëjëf waaw loolu de nun ñi ci ne amuñ ci sikk nun dey nun ñi nga xam ne noonu la yar de nun de ñaan ab dongo moo ko gënal doomam noonu loolu wax nañ ko guddi wax nañ ko bëccëg. Ah, jërëjëf barakallahu fiikum incha allah kon ñu waaj pour julli suñ jullee pare ñu ngi sàkku ci ñëpp ku ci na nga toog fi nga toogoon ba keroog yëfi Léoni di pare suñ jullee rek ba pare incha allah li ngi dese bëreetul ñu ngi sàkku ci ñëpp ñu ñëwaat ci jotaay bi ku te ne jël place bi nga jëloon ba keroog ñuy woote yëfi Léoni yi jërë ngeen jëf أثناء آية النهار مبصرة مبصرة لتبتقوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم jàng na aayaat yu am am solo yu am njariñ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن day orienté nit jëme ko ci yoon wi gën a jub te loolu ci la alquran di woote bokk na ci mooy iqra kitaabak kafa bi nafsika alyawma alayka xasiba ñaari iqra rek moo am iqra bismi rabbik te fii la am ci àdduna yawmal qiyaam nag ñun la iqra kitaabak kon ku ci nekk boo bëggee sa iqra kitaabaka mokk da koy jàng ci àdduna mooy iqra bismi rabbik macha allah yal na yàlla fay ko kon incha allah ñu joxe kàddu yi ki nga xamante ni moo fi teewal monsieur le maire bu ngeer incha allah ñu ngi koy sàkku mu jiga si fii yëkkatu kàddu auzu billaahi mina samiya seytaani rajiim assalaamu aleykum wa taala wa barakatu xanaa ñuy jëkkee rekk ci ayatul quraan bii di yàlla wax ca suuratul mayda yaa ayyuha allazina aamanu atiu llah wa wa ulil amri minkum ila axiral aaya kon loolu moo ñu lënkaleeg suñu bàyyi sëriñ Cheikh Sow mbokki jullit yi ñu ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa nañ tey ci ñaari tànk ci tey suñ kilifa gi nga xam ne moom lañu fekki te yàkkamti woon fekki ko lool benn bi ci njëkk mooy mbirum imaam yi nga xam ne nekk ci commune Nguer Malal yàlla dafa def ma nekk fa ñu jiital ma ci mbooleem li ñu yënguti ci wàllu diine beneen bi ci des ma ñëw fi tey ci musu turu monsieur le maire Alaji Samba Kanté ma nekk conseil municipal yore commission ba nga xam ne mooy commission action sociale et affaires religieuses mooy commission bi nga xam ne lépp loo xam ne jëf la ak yëngutoog ndimbalante ca commune Nguer Malal man mii maay président ba lii mooy jotaay ñaari jotaay yi nga xam ne am naa ko am mbégte itam ci ñëw ci sunu tëru baay Cheikh Sow mi nga xam ne monsieur le maire bii mooy ñetti yoon mu yónnee ma ci ay xew yoo xam ne moom moo ko xewal ma dajee fa ak moom jottali ko kàddu monsieur le maire euh, sun baay Serigne Cheikh Sow monsieur la maire Alaji Samba Kantey nee mi ngi lay nuyu di nuyu mbooleem daara yi nga xam ne ñoo nekk ci luga mboolem sëriñ daara yi neena mi ngi leen di nuyu mu wax ne tey ji yónnee na ma fii man Moustapha mu ànd ak Mor Ka moom itam mu jiite commission ba nga xam ne moo yor wàllu mbay wi mu yebal ñu am na tey juróomi xew-xew yoo xam ne waroon nañ caa teew ma tànn bi teew ci kon mu ne mi ngi lay nuyu ci turu commune bu ngeer Malal yépp mu wax ne lii nga xam ne def na ko fi bëgguma woon sax El Hadji Sow tudd ko te ñaan na yàlla at mii di ñëw mu def lu ko ëpp bu ko yàlla dimbalee ba mu yegg ci kon nee na mu ngi lay nuyu di la siyaare di la ñaanal rekk fan wu gudd ak wér gu yaram lool la xale bi ñaanoon léegi yàlla yàlla na yàlla defal la ko sëriñ bi am na lu ma waxoon ca ngeer malal danaa ko waxaat fii bépp nit boo xam ne am nga benn ràññee walla nga am benn ràññee ci wàlli yu boo ko xoolee sëriñ bi danga ko gis muy sun bàyyi sëriñ Cheikh Sow mii am na juróom yoo xam ne boo ko gisee ci nit ci àdduna na nga xam ne waliyu boo xam ne na nga xam ne na nga am yaqin ne kii de waliyu la tey juróom yooyu yëpp boo ko seetoo ci kilifa gi da nga ko gis muy suñ suñ bàyyi sëriñ Cheikh Sow kon yàlla na yàggal yàlla yàggal la fi euh, liñ waxoon ba daanu ab looyee na ko wax waaye tey sëriñam ñëw fi li muy baax baax lépp sëriñ Fallou Lo ca daaray kokki lam waxoon dëgg la monsieur le maire nag day dafa nekk doomi daara ni mu jàngee al français ba am ci ay diplôme noonu la jànge alxuraan ba wàcc ba mu daataan dem di jàngi français baayam jàngale na ko alxuraan ba wàcc kon lay nuroog daara wala la koy supprimer wala la koy tere kon loola bokku ca te li sëriñ bi waxoon léegi daara yi yàllaa ko moomal boppam képp koo xam ne gën bëgg nga xaj yàlla cëram nag yàlla xañ la sa cër kon dégg naa ay sëriñ daara yoo xam ne ca Kawlax ak feneen ak feneen doomu aadama bu yàlla bindul mënoo ko ñaanal ba dara wàññiku waaye mbirum yàlla nag boo ca jëmee lenn loo xam ne lu yàqale yàlla moo la yàqal sa boppam kon sëriñ bi kontaan naa tey ci ñëw bii ma ñëw euh, Mor Kame Manda itam dafa nekk kenn ci Samba Kanday moo xam ne soxlaalu ko dara te di ko jox kon ñooñu man mii duma ko basa laaj dërëm kon yàlla na yàlla dimbale ñu monsieur le maire nag wax na ne bu ñëwee fii nañ ko ñaanal ndax nee naa leen kilifa goo xam ne boroom xam-xam-xam boo xam ne day dunde aw ñaxam lekkul benn riba kum ñaanal yàlla yàlla nangu ko te kilifa gi gis naa ko ci moom. buñ ma doon tànnloo tey wali yu ca commune ba mu dëkk bu ma jikki bu buñ bedee benn moom laa koy jox ñaareel ba xaw ko ku mel ne moom ci woyef aku xam-xam gisuma ko kon sëriñ bi monsieur le maire nee na. na nga ko ñaanal ci commune Nguer Balal bii mu nekk ndax dafa nekk tey Màkka yaakaar naa ci ngoon si dana ñëw bu soobee yàlla na yaa na la defal ko ajjul mabruur ah, ak mboolem ña nga xam ne ñoo fa nekk mu wax ne bu sajoon moo fi teewal boppam lii nag doyu ko waaye sayet ga mu nekk lii nga xam ne jëlee nañ ko fi tey muy rapport yi commune bi lépp loo xam ne dana fi dox man damay def ay rapport di ko ko jox weer wu jot damay def rapport yooyu bépp doléance boo xam ne am naa ko ci fii bu soobee yàlla maa ngi ko doon déglu te bu soobee yàlla danaa ko jottali du ma ko jox rek ci ay rapport waaye danaa jàkkaarloog moom ne ko sëriñ bi de am na jafe-jafe yii ci daara yi sëriñ daara yi nee nañ lii mooy seeni jafe-jafe ndax man daara dafa nekk samay bëgg-bëgg kon bu soobee yàlla luñ ci mën danañ ko def lool daal mooy kàddu yi nga xam ne monsieur le maire waxoon na ko wa ma salika àlallaahi bi asis wasalaamu ñu ngi leen nuyu kenn ku turam ak santam ma jëlum ñu ngi lay sant yaag moor yéen ñu fi Samba Kanté yebal ah def na nam daa defet dam defoon daaw defe na ko ren boo jot boo de àggee ci moom nga santal ñu ko bu baax gërëmal ñu ko xam na fu mu féete xam na fu mu taxaw sëriñ bi xam nañu ko baax boo àggee nga santal ñu ko gërëmal ñu ko te it na ko soxal na ndimbal ci daara ji lépp loo xam si dana ko dana ko joxe ci ci fële mu nekk yu deme demee nag wàllu fi mu nekk ci ceeb ak yooyu bu àggee nga ko soxal nañ ci ndimbal bu koy joxat nañu nañu nañu geestu bu baax ndax daara ji soxal na ndimbal ah mu jàppale ñu bu baax nag jàppale suñ sëñ bii nga xam ne képp koo ne moom yàlla doo nga lay liggéeyal moom li ko tax a jóg mooy suñ borom rek kon képp ku lu ko waaye defal it defaloo ko kenn sa bopp koy defal. nga gë nga santal ñu ko gërëmal ñu ko bu baax fee mu nekk nag xam naa dafa dafa génn waaye bëgg bëggoon naa teewe ren dafa dafa dem màkk ren bëggoon na koo teewee lool xëy na loolu la su loolu la suñu borom dogal ñu ngi koy sant di ko gërëm baa nga jot lu ñu waxal ñu ko loolu bu baax ñu ngi koy sant di ko gërëm. aouzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. gannaaw ba nu santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur noo ngi sant Baye Cheikh yàlla na fi yàgg te wér lool. ku ne amin yàlla na nga fekke déwén ndax Baye Cheikh mii mënuñu koo fay yàlla ki mën a fay yàlla na nu ko fayal ndax Baye Cheikh bëgg na alxuraan fonk na alxuraan bëgg na yoonu Serigne Touba loolu rek mooy ay waxam mooy ndigalam moom lay santaane xale yi nga xam ne ñoo nekk ci daara jii nag fa tubaarkàlla macha allah Baye Cheikh du sas taalibe Baye Cheikh ab taalibeem 10 heures lay génn 9 lay dugg. du football du taxawaalu du saaga daaray bay seex donga bu ci génnee bu ne boo xoolee xam ne daara yi sëriñ seex saw la génne baay seex mii yal nañu ko yàlla fayal moom ki am fay nun ñu nga xam ne ñooy waajur yi ndongo yi nan jéem a góorgóorlu ca jàpp ci daara ji ca xam ne daara ji sun waa daara la rawatina nun waa bayax gii nga xam ne nun lañu yàlla wërsëgale bay seex te waa bayax jàpp nañ ci seen fukki loxo ak juróom seen dara tërdewul seen dara manqué wul di sant ñi nga xam ne ñoon nañu yàlla boole ñuy xale yu set ay loxo suba guddi ngoon lépp lu nga xam ne seen taxawaay la ñi ngi koy def ñi ngi sant ñëpp képp ku ci def sa dërëm yegsi na yàlla nanu la yàlla fayal moom ki am fay di ñaan bay seex saw yàlla na fi yàlla yàggal ko cam wér ca ànd ak lool am ca ànd ak wér kon fekk ñëpp ci barke Sëriñ Fàllu Mbàkke na nu ko yàlla def ndax daara ji képp kuy jigéen di ci yëngu baay seex xam na yaa ngi ciy yëngu bu dee góor xam na ne yaa ngi ciy yëngu bu dee xale xam na ne yaa ngi ciy yëngu baay seex boo xee mu ne yàlla laa leen bàyyal ak Serigne Touba képp ku nga xam ne sii jàpp nga ci daara ji yàlla na la yàlla ak barkeb alxuraan fay nun nag ma nag man maay baay faalu baay seex duma ci daw duma ci deltu gannaaw ba keroog may ñibbi àllaaxira lépp loo xam ne baay seex bëgg na ko suba ba ngoon loola danaa ci teg sama tànk danaa ci daw suba ba ngoon xooluma kuy def xooluma kuy bàyyi maa ngi sant ñi nga xam ne ñoo topp sama ginnaaw ma jiite leen bu ma ne jóg leen ñu jóg bu ma ne leen taxaw leen ñu taxaw fokkata luñ ma defulu ma lenn lu ma wax loola la ñuy wax lu ma waxul waxuñu ko damaa mun te wax nag fa tubaarkàlla macha allah yal na nu yàlla lafal cat ca boole na ko alhamdulilah. ñu fee taxawaloon benn keesu jàngalekat. kees jàngalekat goo xam dañ cee jëloon jàngalekat benn jàngalekat te bëgg yu bare bari yàlla dimbali na am nañ ab jàngalekat di ko fay te lépp nag wax dëgg yàlla mbootaay gii ñoom ñoo ko jaayante di ci soñwaat nag jur yi nga xam ne si ne seen doom ñi ngi ci daara ji ak fu ngeen mën a dëkk wax dëgg yàlla am na am nga doom joo xam ne si ne ma nga ci kër ga di jàng di wàcc am na loo koy fayal wala am na koo xam ne si ne ma nga dem ca daa ma dem ca école ba di di jàngi te buy dem am na loo koy warlul kon bu baax a baax ak yéen ñi nga xam jot ngeen a jaar ci daara ji wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne si ne chaque weer am na lu ñu ciy jaayante kenn du tudd nag ku ne la ngay jaayante waaye dañ ci soññee bu baax a baax pour mu mu ak ak information bi mën a jàll bu baax a baax ci yéen keesu jàngalekat goo xam ne si ne mi ngi fii weer wu ne ku ne am nga loo ci jaayante kon koo xam ne si ne yëgoo ko woon nga yëg ko te foo mën a nekk ak région boo mën a nekk ka fa nekk da jëwrin nga jokkoo moom waaw wala bu képp ku ci bëgg tamit ak leeral boo ñëwee fii ci table bi ñu dañ la wax ni muy leeralee buñ sañoon daal waajur wu ne daal danañ ci jaayante waaw ah, ak lum néew néew rek moom wax dëgg yàlla xeebuñu ko ku ne loo am daal ngañ koy jox pour ñuy dimbali di ci dimbali ko di ci mën a fay jàngalekat bi bu boobu jàllee yéen ñi jotoon a jaar ci daara ji yaakaar naa li génn ci daara Baye Cheikh Sow kenn xamu nu mu toll dañ fiy jaay ay carte waaye néewaane carte yi ba tey daal gis nañ ne ñu bare bare daanaka jotuñ ko jënd ngir daal lépp day dugg ci biir eh, ci jànga ci ci daara ji kon bu ñu sañoon daal ñi fi jot a jaar ñu bare bare am na ci ay anciens yoo xam ne maa leen gis xàmmee leen bu baax baax bu ñu sañoon carte yi ñëpp jënd ci daal carte membre yi mi ngi fii kon ku ci bëgg rek na ñëw fii bu soob yàlla des na ko des na ko ak yombalal bu soob yàlla ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen baalu di leen baalu di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ sëriñ Cheikh Sow suñu borom yàggal ko fi mu yàgg fi lool ànd ak wér di ñaanal mboolem ñi fi teew ñëpp suñ borom faj aajo yi te motta lañu suñu yéene kàddu yi nag xam naa kàddu soññee rek lay doon ñu njëkke ko ci suñ bopp ñi fi jaaroon li ñu waxoon lépp li mat wax lépp wax nañ ko dañoo jot ndigal rek te suñu ñoo bañ li ñuy soññee mooy daanaka mooy li fi ñi fi jaaroon waxoon rek mooy donga yi donga yi ku nekk xam na ne jamono ji weesu yalwaan bi dafa arrêté woon te bi mu arrêté it sëñ bi moo doon jël ci ay xaalisam di joxe dépasse te lool suñu gàccee la ñun ñii ndax daara ji doonatul daaray sëriñ bi daaray suñu suñu daara la ñun kon ñu gën koo fonkaat te gën a xam ne daara ji moom doonatul daaray sëriñ bi bi ci li ci des mooy képp koo xamante ne mooy kàddu gi nga xam ne maa ngi koy soññee di ko jëmale ci sama mbokk yi nga xamante ne ñoo génne ci daara ji te ma sañ koo wax commencé ko ci man képp koo xamante ne bii génn nga ci daara ji boo bokkul ci ab daayira fexeel ba nga bokk ci daayira ndax daayira yi defe naa ne bari nañ kooku sama soññe bopp la ndax nit alalam ji muy liggéey amu ci lenn lu dul la muy jël di ko def ci yoonu yàlla loolu rekk la ci am yaakaar naa ne liñ lay sas ci an mi yëpp nga def ko ci daayira du la wàññi dara te ab yokkute dong lay doon ci bi ci des mooy kàdd gi nga xamante ne moom lañ bokk ñu ciy nuyu mboolem daayira yëpp yi nga xam ne ñoo amal bis bi mooy waa dakaar seen taxawaayu rafet na lool di ñaan lépp luñ defoon ci an mi suñ boroom yàlla nañu ko fulal ba ñu yàgg koo fekkee te gën koo man yeneen année yi ñëw waa Dakar ñi ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu seen taxawaay ak waa Ngeer Malal ak waa Mbéngeen ak waa Béer ak waa Ngeej yëpp ak waa Touba yi ñu ngi rafet lu baax seen taxawaay ren suñ njort sax dafa kawe ndax daanaka daal mënuñoo wax lépp waaye dañoo góor góorlu gi nga xamante ne yi ñun ci suñ bopp sax dañoo xam ne nit ñi góorlu nañ bu baax a baax ndax fenn fu ne la fa waroon a génne lu ko ful moo fa génne kon loolu ak yokkute ak ci ñun ñu ngi ñaan suñ borom gën ñoo dolli. ba lépp luñ bëgg suñ borom yombalal ñu ko barke Serigne Touba jërëjëf jasaakumullah auzu billahi mina seytaani rajim wa inniya uhiisa bika wa suriyataha mina seytaani rajim rabbi auzu bika min amasati sayatin wa auzu bika rabbi an yahdurooni bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi nuyu ñëpp ci seen tur seen sant di leen siyaare di jéggulu di jéggale di ñaan yàlla boole nu jégal bi jaayi muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam barkeb sëriñ Tuubaa ak Cheikh Fallou di ñaanal Cheikh Seydil Mokhtar mbakke mu yàgg fi lool te wér njabootu sëriñ Tuubaa njabootu jullit ñëpp sëriñ Cheikh Abo Mbacke moom sëñ Fallou yàgg fi te wér njabootu sëriñ Fallou njabootu jullit ñëpp sëriñ bàyyi Cheikh Sow yàgg fi lool te wér njabootu alxuraan ak njabootu jullit ñëpp nuyit nu yàgg fi te wér am jàmm ak xéewal maanaam ni ñu ko sàkkoo rek ni lañ ko fas yéene defe ngir gàttal ndax temps bi ci kàddu way juri ndongo yi maanaam seen kàddu sunu kàddu nun ñi nga xam ni nooy way juri ndongo yi jëm si fii ci Baye Cheikh Sow weesuwul kàddu yi cant ak ngërëm kàddu yi cant yi ak ngërëm nag donte dananu sant Baye Cheikh waaye dananu sant sunuy doom Baye Cheikh noo ngi lay ñaanal yàlla guddal saw fan wéral saw yaram nangu sab liggéey sa dara bañ niil barkeb sëñ Fallu ci barkeb alxuraan sunu xel sedd na ci yow guy nun way juri ndongo yi dongo yi lii nga xam ni moom la ñu am muy li nu gën a bëgg nga jël li gën defal nu ko ci li nu gën a bëgg kon waru noo def lu dul sant la ndax doom moom nit moom defe naa ni la ko gënal ay doom bariwul ndax am euh, innama amwaalukum wa awlaadukum fitna kon gannaaw lii nu gën a bëgg defal nga ci ñoom defal nga nu ci li gën muy alxuraan kon sant la rek la ñuy war a def waaye nun ñii nga xam ni nooy woy juri ndongo yi itam sunu sant ak Baye Cheikh Sow bu mu yem ci Baye Cheikh jërëjëfi kese maanaam jërëjëfi Baye Cheikh ci nun mooy xam bëgg-bëggu Baye Cheikh di ca taxaw sunu kem kàttan te bëggu baay bëggu baay seex mooy dongo yi ak daara ji kon nun ñëpp képp koo ci xam ni way juru ndongo nga te nga xam ni lii lu daara ji aajo woo la muy ab téere walla eh, loo xam ni lu ndongo yi mën a jëfandikoo la wala lu ciy bëggal bëggal baay seex loola la ñu war a eh, góorgóorlu di ko jaajëfe baay seex ndax gannaaw moom lépp dañu koo gàddu li nu waroon a sonn ci suñu doom yëpp mu sonnal nu ko kon nu itam war nañu lépp loo xam ni moo war a jàkk jaadu ci daara yi ñu war caa taxaw sunu doom yi itam liñ leen di gërëme mooy dañu leen a jëloon jox leen ku baax mu defal nu ci ñoom lu baax ñoom itam ñu wëlbatikuwaat donte sunuy doom lañ ñu wanaat aw yoon wu baax woo xam ni sunu nu ni seen wayjur dañ ci am man jëriñuwaat muy lii ñu taxawal bis bii nga xam ni ñoo ko taxawal te Baye Cheikh ci boppam sàkkuwu ko ñoom ñoo dem ba gis li Baye Cheikh def ci ñoom ñu wëlbatikuwaat ne nanu jéem a jukkale njukkale Baye Cheikh taxawal bis bii di ko ko sante kon muy yoon yàlla woo xam ni ñu suñu doom yi wanaat nañu ko fi kon ñoom it ñoo ngi leen di sant di leen gërëm may wax sama bopp di wax mbokki jullit yi ak mbokki way jur yëpp def ko ci lu baax yi ab defukaay ngi boo xam ni lu ci waay def du réer li ñuy wax naan ñaar doo nga fi nekk muy tubaab bi ak sëriñ bi tubaab bi loo ko jox mu yóbbu trésor sëriñ bi loo ko jox mu yóbbu ca Rasuul Baay seex mii nag lu ko fi waaye jox ca Rasuul la ko yóbbu te ca Rasuul moom dara du fa yàqoo dara du fa maxe wasalaamualeykum wa rahmatullahi jërë ngeen jëf ñu gàttal ko noonu rek. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh mbokki julli di góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk diga ñaaleeg sor yàlla ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ba loq di leen ba làq ñaan yàlla na yàlla bokkuñ jéggal di ñaan ki nga xam ne moo tax sunu ndaj mii muy sëñ bi yenn yàlla guddal fanam te may ko wér wax dëgg yàlla suñ ko yoroon day dana fi yàgg lool tànd ak wér lu mu fi yàgg yàgg dama koy wax ne doyul su ma nee yàlla na yàlla ko mën ah, waaye nag man aka ah, doyunu doyulunu yàlla mi mayoon yàlla noo lam yàlla moom mi ngi fi kon nag la yonent yàlla noo bëggoon ak njabootam sañ nañ ko bëggati koy ñaan mu defal lu kawe suñ jot yenn yàlla defal suñu waxtaan mbàkke yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér ak cheikh sëriñu Baye Fall ak mboolem kilifa lislaam lislaam ñëpp ñu ngi leen siyaare moo moo moo dafa nag sama mbokki e, daara yi waaw daara yi de defe naa ne ñi ci mag defe naa bu dul man nit kenn laa ci xam te kooku moom yëgatul ne daara jaa ngi dox kon nag ñi doxal ñi nekk ci daara ji di ñon ñoti mën naa wax ne man maa ci mag daara joo xam ne nag kanamaa ci mag juróom-ñaar fukki atam romb na jooju daara nekkul ne daara ju bees la kon ñu ñaan yàlla na gën a yàgg yàlla nañ dund ba dundaal lu day noonu ci kanamu sëriñ bi su boobaa itam ñu ñaan yàlla ñi nga xam ne ëllëg ñoo nu nara wuutu yàlla na yàlla kàttan na leen balaa booba mu yàlla ji ak ñi bokkal daara ji ak képp koo xam ne da nga koy bàyyi xel ñu ngi la ñaane waale waaye nag di soññee rek di soññ sama bopp di leen soññ te xam ne kuy jëfal yàlla doo doo doo sonn doo tay doo toqi ndax su doon ku defee yàlla da sonn kon ba tey sëriñ bi wane na coonaam may wax ne nettil waxi sëñ Alaaji moo sekk jaa en yàlla seetal ay yaxam daan wax ne nuñ maase sëñ Seex ñëpp laqar ci nañ sëñ Seex dong moo laqar ci googul nun ñëpp laqar ci nañ bu yàgg ci daara yi sëñ Seex dong moo laqar ci yegul yàlla na fi gën a yàgg waaye itam may sant nag xale yi man de su ma amoon su fekkee maa yoroon kun wallaahi da ngeen am leen gàññi yal nañu yàlla defal yéen ñëpp laa waxee bii wax naa ko fi ne leen bi ñu tayee ci saal bi ma ne leen man na maa waar ne kenn ku nekk ci nun la yéenee moo di bisu bi jag jaar ci yoon te it loola mën naa ko waat kenn ku ne sa xirt ci daara ji ak sa pas-pas ak sa mbëgg ci daara ji moo di daara ji yokku jëm kanam rek kenn ku ne mën naa laa waata loolu su ma ko waatoon wóor naa ne danaa wax duma lakk kon nag yàlla na yàlla guddal seen fan yéen xale yi yéen neel barka seenum liggéey li ngeen yéenee def ci daara ji yàlla am na lu ko ëpp fuuf yéen neel def leen lu ko seen njot la wërsëgu na gàññi woo xam ne loo ci bëgg def na ko def te du te du yëngu suñu doom dañuy wax dañ wax ne xasaa inoo laa tan fa kasatul infaax maa ngi seen suñu borom yi ba rek joxe dépasse du ko jeexal du ko yëngal kañ la yàlla tàmbalee joxe dépense kenn xamu ko te ba léegi maa ngi seen mi dara jógu ci kon na ñu ñaan ci barke bu alxuraan barke jëm yi ñu fi dajale barke borom Tuubaa yéen xale yal na leen yenn yàlla kàttanal leen yenn yàlla mi may leen wér yokk seenu ngëm yàlla ak seenu taalibe te mosul seytaan nag waxoo naa leen ne leen biig bàyyi leen xel ne kenn ku ci nekk boo xëyee ponkolum seytaane laxasu na làng ak yow fëkk sam xel def ci nekk sul noonu dong mooy yitteem kon kenn ku nekk bu xëy na bàyyi xel na ponkom seytaane mi ngi ànd ak moom mu fexe ba seytaane moom du fokk am xel du fëkk xolam du ko jaarloo fu dul yoon seytaane daa wax ne al insaane bayna isna isnaani al malaku wa seytaanu wal malaku latul himmatu ila kat amaalihi mu ne kiraaman kaatibiina mu ne ina mu ne seytaane moom la si la himatun illa ikshar amalihi ina seen xaddu teg mu ne seytaane moom lu itteem moo di yàq jëfi doomu aadama dong muy nag ay insaan naa imun baynahuma yaa ngi nel ci diggante ñaar ñooñu kii loo jëf dana ko bind kii loo bëgg def su baax dana ko yàq muy seytaane kon yéen ñaar musul seytaane yàlla mu am siin yu a seytaane indi xibaar li seen indi li indi xibaar di la si la ak al sultaan yàlla ci alquran yàlla na ngeen ci jiitu yéen itam lu doon seen njort ah noo ngi yemale foofu suñu kàddu ñu ko set na ci yéen yàlla na yàlla guddal seen fan yokk seeni i xam naa suñ mbokk jigéen ñi seenu njàmbaar feeñ na fune ne ba léegi jigéen daa mas doon jàmbaar ci lislaam waaye yéen damay wax toujours ne fee may jàngale ci kër Sëñ Tuubaa ma ne leen yan yàlla fay leen guddal seeni fan ndax bu buñ solee yére yu laa ba mën a jaamu yàlla yàlla nangu jaamu yàlla ga yéen soxna yéen a laabal yére yi suñ taxawee man a jaamu yàlla lañuy jëfandikoo ci wàllu xéewal yéen a koy taxawe suñ taxawee mën a jaamu yàlla lan am war am ci set suñ yaram ak suñu yére lépp yéen jigéen yéen koy taxawe ak yeneen ak yeneen ñu jërul yegg nag yan yàlla guddal yéen jigéen yan yàlla fay leen guddal seeni fan gën a neexal ànd beeg borom kër yi lu ngeen am si njaboot yàlla la barkeel lu ngeen am yàlla na barkeel saayiran ngeen dégg salaam alaykum wa min ash-shaytaani bismillahi rahmaani wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi mbokki julliti ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan ci yàlla borom bi tabaraka wa taala suñu bis bu tedd bii mu nekk bisu alquran mu nekk bis bu gënal yàlla ci bis yi ñuy taxawal ci kaw suuf lépp lu ci xeewal yal nañ ko yàlla defal lépp lu ci xeewal yal na yàlla sotti ci kër gi sotti ko ci quartier bi sotti ko ci gox bi sotti ko ci mbooleem fu jullit yàlla mën a nekk ndax alquran mote na ko jàng nañ fi alquran te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam newoon na alquranu lima quri'a la newoon na tim xuz ma chita lima waaye tim lii nit yàlla bi waxoon rek haza surur bi tilkal kurub kon bay seex sow ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ci turu mbootaayu jàngalekatu alxuraan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Louga nekk say njaboot ki jiite région bi nekk Serigne Ndiaga Mbaye moom mu am bis bu mel nii tey ak waajuram ci seen dëkk Beqal ak eh, sëñ Ibrahima Dramé nga xam ne moom la ñu àndal moom moo jiitee département bi ak mboolem sëriñu daar yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaye itam ñu ñëw ci suñu bis néew ci suñu kanamu waajur néew ci suñu kanamu sëriñ néew itam ci suñu kanamu eh, eh, kilifa diine waaye tim nekk itam ci suñu kilifa daara mu nekk suñu bàyyi Cheikh Sow ñu lay ñaanal yàlla yàlla yàggale suñu kanam ndax kat suñu tiitar nga ci Louga eh, te ku mel na yow tey ci biir Louga ci mag mu mel na yow tey mel na ne tey bareel ko tey ci biir Louga donte waa mbokk yaa ngi wax waaye ñun ci biir Louga walla departement bu Louga mag mu toll na yow yore daara nekk ci daara ja ba bis na ka tey loole tey buñ ko amee tim bareetuñ ko kon ñu ngi lay ziyaara di la ñaanal yàlla yàlla bàyyi la suñu kanam ba ci kanami kanami kanam nuy itam sa doom ji bu baax te mooy sëñ Alaaji Sow mi nga xam ne euh, fépp foo waroon a taxaw lépp loo waroon a wax tey ji tey ci loxoom la nekk lépp lu ñuy def tey bu ñu fi jiituwul tim ñun jiituwuñ ko ci pas-pasam taxawaayam ak yéeneem ci mbooloo mi sëriñi daara yi ne ci biir Louga ñëpp xam nañ ko ci biir Louga deux cent et quelques daara ñoom ñoo fi nekk ñaar téeméeri daara ak ñaar fukk yu topp ñoo nekk ci biir commune Louga département bu Louga ñeenti téeméer juróomi téeméeri daar yu manqué tuuti moom moo fi nekk bi ñu mujjee def recensement région de Louga junni ak ñaar téeméer yu topp ci daara ñoom ñoo bokk ci mbooloo mi te ñoom ñëpp dem nañ ci yu bari waaye gis ku mel na yow fekkee ne yàlla la ñuy wax yombul waaye nag li nit yàlla ba waxoon rek fa salaasatun laa yastaxifu bihim illaa munaafiqun mubahamun qabiyun ñun ko kan ak kan mu ni faalimun ñun ko ak kan mu ni wa muqsitul imaam ñun ko ak kan mu ni kazaaka zu shaybatin islaam ñetti nit kenn du leen doyedal ku dul naafiq ñun ko kan mu ni borom xam-xam yàlla defal na la ko bay Cheikh Sow ñu ne ak kan mu ni njiit bu maandu yàlla def na imaam nga ci daara yi imaam nga ci jàkk yi mun ko ak kan mu ni noonu la ko dund ci lislaam ba bejjaaw fekk la ci lislaam kon bàyyi ñu ngi lay ñaanal yàlla nangu dund dund wettali ñu ko ci yàlla bay la ak sa xel ak sa xalaat wéral sa cër nangu sa ñaan may la mujj gu rafet te lépp loo ñaanal njaboot gi ak jullit yàlla yàlla na ko yàlla nangu ñun njaboot gi tam ñu ngi la koy ñaanal ñuy ñaaxtim bu baax jullit yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci daara ji léeg-léeg ma ni nit garab gu mu laqatu ba rey ñay warul ku mukk di gor garab googe saa su nekk war nga ko roose mu gën a jëm kanam mooy nit fa nga nekk ba nga am li nga am tey foo génn ñu naw la loo wax ñu déglu la buy julli jote la jàllal nga julli wóor la ni lii donnaloo ko ci sa baay jënduloo ko waaye dafa am foo ko jëlee foofee nga ko jële saa su nekk danga nga war a soxale béréb boobe mu jëm kanam loolu ndongo daara ñu mel na ñun ñi fi jaar ñoom ñoo ko moom nit nag du fàtte dëmb ki tax nga nekk nit bu nite nga nekk nit ki yàlla soxla fa nga nekk nga am fa dara nga am fa teraanga mu wóor la ni teraanga ji donnoo ko ci sa baay sa baay moo la jur dëgg la waaye li nga am tey cib teraanga du judd moo la ko may waaye dafa am lu la ko may lan moo la ko may mooy qaala allahu qaala rasul bi ngay wax te tàmbalikaay boobee fan nga ko jële jële donnaloo ko jëndaloo ko kon fan ko jële foofee waroo faa fàtte mukk ci àddina nit nag dañuy wax ni nit loo leble moom lañ lay fay rawatina boo jaaree ci daara nga dem bay toog di jàngale yow yore daara war ngaa jéem a góorgóorlu sa sëriñ ba la jàngal nga màggal ko ormaal ko siiwal ne tim diw moo jàngal complexe bi ñi ñëpp ñu bëri am ci ñun mooy jàngi ci béréb ba pare dem ba am xam-xam te am nga rëy nga toog ni man diw moo jàngal te yow saa su nekk ñi nga jàngal yaa ngi damoo ni diw maa jàngal ñooñee ñu ngi toog ni diw mooy sama sëriñ te yow sa sëriñ doo leen ko tuddal loole ci rëy la bokk ak suul teraanga ji la yàlla defal waaye nekk wallaahu mutimma nuurahu walaw karihal kaafiruun boromi xam nga bi benn woykat dafa ne woon as ka sibri murrun fi masaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al asal dafa ne woon muñ mu ngi mel na kaani ci wexaay boo ko mosee waaye mujjantal ga moo gën a neex lem yaakaar naa ne ña jaaroon ca daara ja la doon daj ñu muñ tey ji tey yaakaar naa ne tey tey ñoo ngi tey taqamtikoo lem gi te daara kenn ku nekk jàpp na kenn ku nekk xam na ne li ci nekk mooy muñ ndax boo muñul doo mën a am barke sëriñ bi doo mën a amee barke xam-xam bi waaye doo mën a am tim xam-xam bi nga xam ne moom moo tax sa waajur jàpp la ci loxo yéene ci yow ajjana yéene ci yow tim nga gën say moroom yéene ci siw mbaax jël la bu dugal la ci sa yóbbu la si sa sëriñ mu jàngal la kookee saa su nekk yow mii doom war ngaa sagal sa baay war ngaa siggil sa baay war ngaa teral sa baay loo mën a am teraanga joo mën a am bul fàtte sa baay bul am xam-xam ba ëpp ko xam-xam nga yaakaar ne nga jàpp ne yaa ko gën déedéet jàppal ñi sa teraanga ji nga am sa baay moom moo ci njëkk ndax bu la defoon béykat amana lii doo ko am bu la defoon ci càmm gi doo ko am bu la defoon ci mécc mi doo ko am kon yéene ba mu amoon ci yow mooy nga nekk nit ku baax nit ku tabe nit ku nit kuy jaamu yàlla ngir boo ñibbisee nga mën a mottali la nga xam ne moom la manqué woon kon garab gi ngay jëmbat ci këru baayu jàmbur te bu màggee bu kër gi yaatoo ba moytul yow ñu puus la nga génn garab googe demal nga jëmbat ko sa sa kër baay ñu leen di ñaax lool di leen sant di leen gërëm rawatina bi ñu taxawale bis bu mel nii waaye saa su nekk ala kulli haalin mbooloo mu ñu taxaw dina am ñu gën a jàmbaare ña gën a jàmbaare nañ liggéey te yàlla tax ndax kat rubbama yanaalul murid min sidqi cheikhihi bari na li taalibe am fathu muñ ko jëlee ci gëm gi gëm sëriñam ndax kat man allamaka harfan waahidan fa huwa fi diin man allamaka harfan waahidan fa huwa abuka fi diin te loole nga xam ne kookee am na cër ci yow cër boobe nga jox ko ba mu mot dëkk ndoor yi nan góor lu ñu xam ne am na lu leen yàlla defal nit nag bu yàlla tëggalee da ngay fecc boo feccul boo moytul dana am keneen ku ñëw fecc lépp lu fay neexal mu jël ko yóbbu ko te yàlla li mu am leblewu ko mayewu ko def koy jaay ci koy maanaam danga ci sonn nga mën koo jot kon nañu jàpp ci daara ji nan góorgóorlu ci daara ji ñu ngi jégg lu baax ci kàddu yi maa ngi doon waxee ci kàddu kaddu Ibrahima maanaam Serigne Ibrahima Dramé nga xam ne moom moo jiite département bi ak mboolem Serigne daar yi fi nekk ñuy jégglu ci kàddu yi bu baax di ñaan ci suñu baay suñu baay Cheikh Sow yal na yàlla guddal fanam te yàlla taas ñu ci barkeem te yàlla bàyyi ñu ci kanam maanaam yàggal dundam ñu yàgg ko fee fekk mu ñuy ñaanal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di ñaanal sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla yokk leeram ca barsàq ca taas na ci barkeem di ñaanal sëriñ Seex saw mu yàgg ci kanam lool ñu yàgg ci gannaawam di kàddu yi ma yëkkati nag ci sama kanam waajur yi maa ngi koy jéggulu ca xam ne ab taalibe moom ndigal rek moo koy jot fu mu ko jotee mu jóg waaye kon du ma yëkkati kàddu yi seen kanam maa ngi koy jéggulu di soññiwaat di ñaanal baay Seex saw mu yàgg suñ kanam lool ca xam ne nun mënuñu koo fay nit gone yi doxe woon jóge fii dem ba Dakar ngàmb seeni tànk di dox noon suñ jamonoy di de moo ko woote waaye koy ñu kenn ku nekk fa nga jóge danañ ko ŋàmb danañ raam di dox ba egsi ci moom sukk ci kanamam siyaare ko jéggulu ko tuubaat te xam ne def na ci suñ gone yi loo xam ne si mënuñu koo fay gone yi mënuñu koo fay li nga xam ne si gone yaa ngi koy daj maanaam liñ koy fa di ko defal bis bii dafa gul lu day na luy dem ci wee kon nag nañ góor góor lu waat bu baax bu kenn joxe ñaar dërëm na ñaar dërëm ya ma joxe bari na bu kenn joxe junni na junni ba ma joxe woon bari na na kenn ku ne la nga joxe na nga xalaat ne dafa goo fa dara dangay doog a commencé nan fasaad yéene warat na nun jigéen ñi nga xam ne si suñ doom yaa ngi ci daara yi nun ñëpp noo war a laxasaayu nañ xool ne jigéen jenn ju ne bokk ngam natt te natt boobee fii dong la yem ca lii ñuy def danoo topp dañuy topp ba yowmal xayaam lii may wax jigéen ju nekk leer na la kenn ku ne fa nga toog ci sama bopp laa ko commencé kenn ku ci nekk fa nga nekk bokk ko fam natt ca bu waxtu wa jotee boo ko deful ñu àllamaan la ca lii dañuy jariñ ba yowmal xayaam moo ñuy yóbbu kon nag nan ku ci jigéen ju defati benn dërëm bul na benn dërëm balaa ca def ca waxtu wi daaw taxawoon naa fi na leen nañu ñaan bàyyi seex ñaanal nu ñaanal nu ñaanu xaas ñaanal gone yi ñaanal nu jigéen ñi ak mboolem mépp soo ñaanee juboo nga ak yàlla juboo nga ak arxuraan ba loo ñaan suñu borom dana ko def ñaan googee ñaan nga ko ñoo ngi koy raamaat di ko sukk di jébbuluwaat nga ñaanalaat ko ndax kenn ku nekk gis nga sa bopp gis nga yokkute gu mat sëkk ci sama jëmmi bopp ji laa koy commencé kon na ñaan googee xeebunu ko noo ngi koy dagaanaat nga ñaanalaat nu ko yawit ñu lay ñaanalaat nga dund ñaar téeméeri at ci sunu kanam ak ñëpp ca képp ku ne amin yàlla nga ko dund ñaar téeméeri at ñoo ngi koy sàkku di ko ñaan sun borom man na ko am na ko ñoo ngi ñaan mu def dundal la ko ci barkab alxuraan kon nag nun jigéen ñi di yaayi dongay daara yi lii ñu yor xamuñu ko dañoo yor lu rëy ci xamuñu ko ndax donga yi jëkkoon fii dongoy daara yi jëkk fii defuñu ko woon ñu ngi koy réccu kon nag nun ñu ko suñuy doom di def nan leen jàppale sun fukki loxo ak juróom nan leen jàppale sun fukki loxo ak juróom nan yëkkati daayira yi di ko def ci biir dëkk yi dëkk daayira bu ne dëkk bu ne du lim xam ngeen donga bu ne fa mu jóge xam na ko waa juróom jóge na fa ñëw teew sin kon nag man duma lim ñëpp laay boole wax bi nan maase nu ñëpp yëkkati daayira daayira bi buñ ko xasee yëkkati buy taw nan ca ne buy naaj nan ca ne buy bëccëg nan ca ne buy guddi nan ca ne ndax moo ni jariñ fii jariñu fa nu jëm kon nag Baye Cheikh mënuñu ko fay nan kati daayira yi keesu jàngalekat yi nan ci nekk ndax mooy moom lañuy ñuy fay gone yi jàng nan góorgóorlu carte barkeelu yi nan ciy nekk di màjjaal gone yi di ci andi ko fii ndax di ko jox gone yi ñu di ko dunde Baye Cheikh a ngi jënd saabu ma ngay joxe dund ma ngay joxe lépp con kenn ku nekk ñi fi jaar wax nañ ko kenn ku ci nekk sa doom danga yor ca kër ga yaa nga koy sang ba mu set di fopp di niir di jox muy lekk muy jox muy naan ki ci daara ji nag nga moom nga wàcc ko tuddatoo ko faale woo ko boo ñëwee ci daara ji nga koy commencé di ko yër di ko niir ak di ko nag naggee nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon nan xoolaat sunu bopp nan xoolaat sunu bopp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu aru bi di maxaali mbeng ci kàddoom la ñuy wax suñ paree danañ wax ci kàddu euh, muudu mbaj mi nga xamee ne moo jiite organisation bi ñi mu bëgg sant mooy ñu ko jàppale ci bis bi ba mu sotti mbootaayu ansaaru diin li ñuy njëkk a wax mooy fàttali mbooloo mi lan moo ko tax a jug li tax ñu sos mbootaay boobu muy ansaaru diin mooy jàppale daara ji suqaliwaat daara ji day baax loolu ñuy fàttali nit ñi lañ moo lan moo waral bis bi mooy lan ñépp rek wëlbatikuwaat jàppaat ci daara ji suqaliwaat daara ji gën a dimbale Baye saw ci euh, liggéeyu liggéey bii nga xamee ne ci la nekk muy liggéeyu lislaam bu mag bi su ko defee nin ko sose mooy raison bu ne am mbootaay bu fa nekk waa Touba dañoo am seen seen mbootaay ñuy wax daayira seen xam dañuy dajee waa Dakar noonu waa Ngeer di ko doxale noonu waa njeej ji tamit noonu buñ limee reson yëpp sax dana am yun bàyyi bu ko defee président bi moom li muy wax njiit mi muy maxaali mooy soññ mbooloo mi rek gën a soññ mbooloo mi te xam ne dëgg la ñi ngi góorlu waaye aw fas moom buy daw du tee tamit nga di ko làbbal ngir mu gën a gaaw kon boog njiit mi muy maxaali mi ngi leen di soññ yéen ñëpp beneen ba mooy ñu gën a ànd gën a takku gën a bennoo ak lépp loo xamee ne xam na ne day doxal liggéey bi kanam rek loolu ñun ñëpp nañ ci gën a jàpp ñun ñi jaaroon ci daara ji ba jugewaat ci daara ji ñibbi kenn ku ne raison ba nga nekk di liggéey raison booba bu amee am ndaje mun fay doxal rikk waaye bu fekkee dimanche la bu dimanche jotee loo jàppoon na ko bàyyi dem bari nañu jaaroon ci daara ji ñoo xamee ne Dakar la nekk di liggéey waa Ndakaar am nañ seenum ndaje mu ñuy doxal mu ñuy amal chaque dimanche wala chaque quinze jours loolu foo nekk ci dakaar bëgg koo xam bu la ñoree mën nga koo xam la boo fa ñëwee lañuy ñuy sasoo chaque at danga nga ko xam kon boo bëggee def sa ñaq ci daara ji yoon wi ngay jaar dana yomb bu fekkee ne Touba nga nekk di liggéey waa tuubaa am nañ seenum ndaje mu ñuy def chaque guddi àjjuma boo xamee ne daara ji moo ko tax a jug bu jotee boo bëggee xam nan ngay def ba ba teew boo jokkook ñu jaaroon ci ji da ko xam kon mbootaay mi ku ci bëgg a dugg te mu ñor la nga dugg ci dana yomb kàddu yi nag kàddu yi soññee la rek nañ ci gën a jàpp ñun ñëpp kenn ku ne foo nekk di liggéey bu fekkee foofa sax amul am ndaje mu ñuy def nga jéem a jokkoog ñi nga xam ne ñoo ci yëngu la ñu sasoo nga fexe ba jot ca Eh, eh, nga fexe ba yónnee ko beneen soññe bi tamit mu ngi gën a jëm ci waajur yi rek lool moom duñ dañ di ci gën a soññee am na ay pot yoo xamee ne wax dëgg yàlla andi woon nañ ko waa Touba ñoo ko wutoon ba indi ko ci daara ji li ñu bëggoon yéen jiñ ci amoon mooy waa koñ bi sasoo ko bu mënee nekk sax kër gu ne jël benn pot wax dëgg yàlla am benn dongo boo sasoo na dëgg ko tibbal añ wala reer loolu dana gën a jàpp ci daara ji nga xamee ne ki yor daara ji di jàngale lu mu am ci waxtu wu muy jàngale da koy xeeb ba tax na loolu buñ ci jàppoon ba yolwaanu bëccëg ba yolwaanu guddi gi arrêté ñuy yolwaan suba donc boobaa danañ gën a am waxtu xale yi dana gën a mën a jàng loolu nag lu mën a nekk la waa bayax suñ ci waa bayax ak waa jéemee nag waa waa Louga suñ ci takkoo loolu lu mën a nekk la loolu yaakaar naa euh, boo demee ndar bari na fa lool ñu ñuy jaar ndar xam na loolu daanaka boo nekkee jàng xam-xam sax boobu de sa bool da ngay ñëw rek teg ko ci kër gi bu añ jotee nga dem ca waañ wa fekk ñu defar ko ba mu baax nga jël yóbbu waa kër gi sax mën nañ laa bañ a xam ni ñuy tàgg ci ndar naan ndar dëkkub teraanga la Louga tamit nañu góorgóorlu ñoom it ci loolu gën a jàpp dëgg la ñi ngi jàpp ci daara ji waaye dañ leen di gën a soññ beneen bi mooy kuréel bu ñuy wax muqaddamatul xidma ñoom ñoo yor waa waa ñoom ñoo yor waañ wi ki ko jiite mooy xaadim taysiir moom it mun baj nee ne mi ngi leen di sant bu baax ci jàpp ci jàpp gin jàpp ci waañ wi asalaamaaleykum wa mbooloo mi ñi ngi leen di nuyu mbooloo mi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di baal àq te di leen balu àq nun nag liñ ci fas yéene wax mooy lan daa wax di ko waxaat rek ñi nga xam ni ñii yàlla def na ñu nekkoon ci daara ji ak ñi fi nekk daara ji li ma daa wax waxuma la alxuraan ji fi nit di jëlee waaye yar bi fi nit di jëlee képp jar na ñëw ci daara ji yar bi nit ki jële ci daara ji dugg ci daara bàyyi seex sow ji yar bi nga fi jële képp jar na ñëw ci daara ji soo fi xamul woon dara te ñu yar fii jar na ko waxumaa na nga yaroo fi amee fi alxuraan li ma daa wax ñi nga xam ni ñoo fi jóge it lii ñu xelaat ba def ko am nañu ci ngërëmal Serigne Cheikh am nañu ci ngërëmal sëñ Saliou bi nga xam ne nii ah moo sëmp sëñ Cheikh fii di ko liggéeyloo sëñ Cheikh sëñ Saliou woo ko fi sant di ko liggéeyloo ndax ca ba ñu yëngal daara ji day ba ko sëñ Cheikh waxee daara ji dafa ni ko Cheikh mënu ko Mbàkke mënu ko demal nekk ca la nga daa def nuyit nekk ci lañ daa def lanu mag ñi bàyyee loon nan ci nekk loolee nag ca la sëñ Cheikh nekk moom ca la teg tànk ba léegi teggiwu ko am na lu fi Alaaji yëngaloon sànq man yàgg naa ci daara ji ndax ba muy ci daanaka fi laa nekk nit ñi nag dañoo naqaree liggéeyal képp ku gembu jëm ci yàlla bëgg a nit ñi seytaane dana jaar fotoxlu bëgg fu mu yàqe sab liggéey loolu alaaji doon wax nag fett ngaluk seytaane la gu mu bëgg a dugal ci daara ji waaye rikk waay ñi nga xam ne ñii ñoo fi indi seeni njaboot di ko indi ci daara ji di ko fi dugal di leen jàngaloo sëñ bi néewul kenn sa doom jox ma ci dara néewul kenn it sa doom andil ma ko sëñ bi propagande laay dongo nañ woon ni sëñ Cheikh propagande laay dongo dafee ne ngir yàlla képp koo xam ni kenn ni nga fi sa doom yàlla tax nga indi ko fi li mu ci man lépp dana ko ci def ba def ci lu mu ci deful waaye nag dugg ci kër nit naan ko àndal ak diw wala na la diw féete wala féeteel ca diw te nit ki samp këram nekk la fa nekk mu nekk ci kër gi di ko fa liggéey ànd waa kër gi di liggéey ku fi indi sa doom neel yital ma sëñ Cheikh sëñ Cheikh ko fi nekk ku mu nu fi jàkk rek xam na ka mu la war a jox mu jàngal la xam na ka mu la war a jox mu dimbali la xam na ka mu la war a jox mu féete woo ci biir daara ji waaye yow mii di sa doom waroo naan kenn féeteel ak sama doon wala féeteel kër sàngam wala féeteel dikk sàngam képp ku ko fi def ba ñu yëg ko na la ni boo sàgganee sa doom des na ko fi génnee ndax loolu yàq la ku fi andi sa doom andi ko fi ngir sëñ seex bàyyeek sëñ seex la sëñ seex bëgg ci moom dana ko ci def la nga bëgg dana ko ci def te yàlla ak sëñ Tuubaa tax loolu daal mooy li ma bëggoon a mottalee waxu àllaaji bi mag ñii andi seen doom ak ñi fi seen doom ñan ñëpp nañu ko xam daara ji sëñ Cheikh sampe ko fi ngir lu mu am da ko fee liggéey dong ngir Serigne Touba toogal fi Serigne Touba di liggéey Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatulah ngeen baal naq. Ah, noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di ñaanal yàlla ñëpp ñëpp ñëpp. noo ngi sant ñëpp ñëpp. ñi nga xam ne noo bokk noo noo bokk loolu ñuy wax quartier wala ñu ci wàllu quartier bi ndax barab bi moom mboolam koo xam ne fi xam nga ko rek mën naa ne mën naa ne daanaka rek yëngu ko yëng nag bu xasee am dara dara di sut kon noonu ñaan yàlla yàlla fayal li rawatina nag kilifa yi nga xam ne noo bokk ni ci ci ci ci dëkk bi noo ngi sant it bokk yi nga xam ne danoo bokk lépp ñu fab seeni doom di fi indi ci wet gone noo leen sant ci loolu ndax nit koo doyloo baata na sàkk sa jëmm di ko dénk dama dama naka jàkk naa kooka moom yow mënatoo koo fay te noonu ma ko waxee nu mu mën moom laa fas sama xol ndax li gën a jafe mooy do do doy doy ku la doy danga bokk nit lool jege moom la te doo ko doy jur doom sax boo tul mbalu doo ko doy nga am rek doo ko doy waaye ñoom wax dëgg yàlla loolu doyul leen ñi nga xam ne ñooy ndongo yi fi newoon sunu cant moom wax dëgg yàlla mën mu ko wax lépp ndax ñoom bu doon seen sago daara ji doon ci yëngu dara dara dara dara ci def dara lépp ñoo koy def te def nañ ko nag dañ ko def ma gis ko buñ ko deful nag du ma ko du ma ko wax kon yàlla yàlla fayal leen fa ñu bëgg a àgg yàlla nañ fa àgg ànd ak wér ak wér yàlla na yàlla dolli seen jub yàlla na yàlla dolli njub yàlla na yàlla dolli ndimbal. ndax yàlla ku mu dimbali du soxla ndimbal kenn yàlla yàlla boole mu dimbali saa ren ma baat ah njaboot gi nga xam ne noo ko bokk séq nag am na lu mu daa wax daa leen ko daa leen ko fàttali tey muy ñi fi indi seen doom ndax maanaam li aaday réew mi te tax mooy la baax ci ku ko bëgg ñi de am féete maa ngi sa dégg ci sëñ Abbas daal laa anu wax ne ni day day am féete ndax ñàkk féete day doyadul nit e eh, daana leen wax ne man day sama ngor ak sama maandu dafa am dafa am loo xam lii ma mayuma ndax fii ku fi indi sa doom sa doom ngir ma jàngal ko ma xam wet nga nga féete doom jooju day fi nga fiite rek falaa ko falaa ko fiite bu dee murit bàyyam di am taalibu murit wet googu laa ko fiite bàyyam di ab tiijaan wet googu laa ko fiite loolu moom mi nga bëgg a yàgg ci man mooy sama jukkoom wala yàlla ma ko bind li nga xam ne moom laa moom laa yittewoo ci yow de soo ko nangoo danaa la jàngal danaa la jar jarub lislaam jeex na nag yaa xam boo fi jógee foo noo koy de rek foo koy def sama yoon nekku ci man na sëñ Tuubaa du ma ko paraparaan yaakaar naa ne ñu bari yaakaar nañu man ab taalib taalib sëñ Tuubaa la te yàlla naay moom waaye nag am na loolu de sama ngor mayu ma ko sama maandu mayu ma ko ku fi ñëw kenn ku ne de la sa baay doon yàggul feggul fii sax dafa benn xale boo xam ne bii dafa tawat ñu ber ko fële ngir bañ gone yi gaañ ko ma yow jëm ci jàkka ji romb ko ne ko diw mu mel ne damaa dégg mënu ma mbàkke waaye wóor waaye nag dese na maa leer ma ma jàll ba ca beneen nag ba ca sama dikk romb ko ni ko diw mënu ma mbàkke ma ne ko waaw noonu naa mbàkke nga ma wax mu ne ma waaw ma ne ko bu ma ko waxati na mujj tey laa wax maa moom rek ak yàlla na mujj tey li ma bëgg la sabaay di nu sabaay di wuyoo nga wuyoo ma maa ngi ma ma su santu baay yaakaar naa ci toll fii yaakaar naa bu la yàlla am na yooyu doon suwaal doo ci dugg loolu rek laa leen a xamal dinañ ko fàttali dégg ngeen ko ci man sax ba tey wax nañ ko ba tey te it moo fi nekk waaw kon mbokk yi jërëjëf jëf ah ñi ñu war a ñi ñu waroon tudd nag ñu si bari tudd ne du doj nag waaye na nag na na ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te yàlla yàlla ma ñu daal fi daje fi na ngeen tal ko nag yàlla man na ko yàlla na ko yàlla defal xanaa kon jéem a nangu ñaan rek ah, na ah, te doy doy waaye du doy waaye nag doy lu doy loo ci am da nga koy kon ngeen nangu ñaan yéen ñëpp nangu leen yéen ñëpp foo ay nekk ne amin lu waay bëgg rek sëñ bi nee na nga fas ko ci amin incha allah nee na ñun ñëpp ñu bokk yaakaar yàlla moo man lépp mooy def lépp yàlla na ko soob mu defal ñu li nga xam ne moom la ñu bëgg ah, nee na bu gënul woon it ci ñun it mu gënal ko ci ñun te jox ñu ko bismillah kon na ñëpp wax amiin ca bang ba nis mu génn ca kuur ba te bu wàccee jox ko añam ba jërëjëf yàlla na fi yàgg lool nga ca école ba sangu ba set toog ca bang ba nis mu génn ca kuur ba te bu wàccee ngeen jox ko añam ba réew mi moom tere na yalwaan fexe leen luutu yalwaan ndax dañoo war a lekk naan di taal lamp yu takk naan réew mi moom tere na yalwaan fexe leen luutu yalwaan muraabi xaalis lay laaj ndox mi it xaalis lay laaj donga bu feebar xaalis lay laaj xaalis bi kay daara gi laaj courant xaalis lay laaj lay laaj donga bu feebar xaalis lay laaj xaalis bi kay daara gi laaj damay teel a ngir jàng njël yow nga teela jug ngir sàkku ji njël kon deema seet njël ndax dañoo teg sama yoonu njël damay teela jug ngir jàng njël yow nga teela jug ngir sàkku ji njël kon deema seet ki sa njël ndax dañoo teg yoonu njël bàyyi donga woo ngir ñoom ñu ànd booloo weer wu nekk ñi def